đâu đâu Nhân tình người chơi khi phi hoài Luôn chỉ là một cô lửa toujours dans votre scandale du jour talaata ñaar Foki fan ak Ben ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñatt ginnaw bi nga xamanteni ki di oustaz Omar Sall yëkkati won na ay kàddu yo xamanteni ñi di tarixa tijaan yi gisoon nañ dalen togn dalen da leen xas da leen dénigré ci kaw li nga xamanteni moy khadaratul juma ak wasifa ginnaw bi nga xamanteni suñ ba noppi ni ñuy dajaloo noonu di tudd turu yalla ki di oustaz Omar Sall ne woon amul ben yoon bu xamanteni ni bi dagaloon na ko di nga xamanteni moy collectif jeune tijaan yi dañ demoon porté ji plainte foofu ci cybersécurité ginnaw lolu bu mu défé garde à vue moom retour de parquet je crois que instruction la jëm ci biir loolu nag am na koo xamante ni yëkkati na ci ay kàddu nañ déglu ci kàddu yi dellu siwaat di ñaanal Umar Sall yal na yàlla defal ko jàmm yal yàlla génne ko fu mu nekk jàngat bu ndaw bu ma siy def rek mooy que tey jii euh, Tijaan yi lan moo tax ñu porter plainte Ousmane kii kay li nga waxte Umar Sall c'est juste parce que dafa wax ne fa bokkul ci diine maanaam dajaloo bi Tijaan yi di dajaloo saa buñ dajaloo bu ñuy dajaloo di yuuxu naan allah allah allah Omar Sall dafa wax ni loolu noonu bokkul si diine bi Omar Sall waxee loolu ba pare ñu dem def seen ay gëstu xool téere na yëpp gis ne loolu amu fa dem xool alxuraan ba sonn gis ne kat amul fenn fu ñu yàlla diglee gannaaw julli ñu dajaloo di yuuxu au lieu ñu nangu dëgg bi leen Omar Sall wax mais rëy dañu rëy goo xamante ne nanguñ dëgg bi ñu ne nag suñu gàcce gi pour ñu saafara ko nañ ko dem porter plainte jaay ko doole léegi dafa am affaire bu fi am mooy que ni boo bokkee ci tarixa boo bokkee ci këru diine am nga droit saaga yàlla am nga duraa wax lu la neex am nga droit def lu la neex te daara du la ci fekk Sénégal boo bokkee ci tarixa n'importe quel tarixa nag am nga droit wax lu la neex ci diine ci te dara euh, du la ci fekk tey ji collectif de Tidiane bi nga xamante ne ñoom ñoo porté plainte Oumar Sall ñoom seen bëgg bi ñuy wax ci yonent bi bu dee dëgg la bu dee li ñuy wax ne dañoo bëgg yàlla bëgg diine islam bu dee loolu dëgg la ci ñoom bi fi Moustapha si toogee daaw rek organiser gàmmu woo ci jullit ñi ba jullit ñi wuyu si ko mu taxaw directement première partie gàmmu bi lu bu njëkk a def dafa saaga yonent yàlla Souleymane saaga yonent yàlla Daouda ci gàmmu bi direct ñëpp di dégg collectif Tidiane lan moo tax porté woo leen plainte Moustapha Sy jour boobu parce que Moustapha Sy Tidiane la parce que Moustapha almaktum mooy baayam parce que Moustapha Sy sëñ Babacar Sy mooy maamam parce que Moustapha Sy surtout Alaaji Malick la ci tarixa Tijaan la bokk dafa am mbooloo dafa am ginnaaw moo tax doo leen ko porter plainte doomam bi mu jur ci gañoom capitaine taxaw na fii xool Moustapha Sy ba mu nekk ne ko papa yow bu la yàlla naree fay ma xeex ak moom Makhtar Sarr vidéo boobu dégg nga ko Mamatar Gueye Jamra vidéo boobu dégg ngeen ko collectif Tijaan dégg ngeen wax yooyu capitaine si wax porté woo leen ko plainte benn yoon pour lan parce que dafa am doole Moustapha si mooy baayam moo tax lu ko neex mu wax ko ci diine bi Baye Ousseynou génn na fii ne dafay poñe yàlla teg nañ fi vidéo bi sànq ne dafay damm yàlla wax wax yàlla wax yoo xamante ne ni rus nañ ci sax jaaraat ngeen koy dégg di gis vidéo boobu noonu porté wariñ ko plainte ab taalibe murit génn na taxaw ne suñ Tuubaa moo bind yàlla ngeen dégg ko nii ci seen nopp gis ko nii kooku yéen a moom ba léegi nii Sénégal yéen a ngi koy gis yéen a ngi yeewoo ndoor moom di ko gis nii te ba léegi nii porté wariñ ko plainte dara jotu ko mi ngi ci jàmm ak salaam beneen murit génn na fi teg alxuraan dëgg ci ay tànkam ne man fi ma sëñ Tuubaa làkk kenn mënu faa yegg maa ngi nii sama tànk laa jël teg ko ci alxuraan dara duma si fekk kooku anamu ay jullit ngeen de yéen a ngi nekk ak moom biir Sénégal porté woo leen ko plainte benn yoon kon Sénégal réew la moo xamante ne kumba am ndey moo fa am ak kumba amul ndey léegi nag Omar Sall ku yaakaar ni porté ko plainte tëj ko kaso loolu mooy ne daawo bi wala ku yaakaar ni tëj Omar Sall kaso mooy tax bu génnee dafay noppi fay bàyyi di leral duggu yalla ji yaangi nak sa bop Omar Sall li ngeen def ni da ngeen ko gëna mëna may temps pour mu gëna a ak borom mom gëna mëna jaamu yalla julit bi lepp lu ko dal yiw la Omar Sall bu génnee kaso bi iznillah walu da fa a gëna ay problème bi moy fi nek ni yeen yeen problème bi ngeen am moy dëgg bi nek di leer manam dëgg bi ñew ne fang ñepp di si tek seen bëtt ñepp di gis ne alcorane ak sunna moy dëgg tarixa yi ay tiaxar la ay yoonu seytaan la yo xamanteni ni ku ci top waccoko safara dong la lay jëmee amul benn direction bu la tarixa di yóbbu bu dul safara parce que njub ci topp yonent bi la nekk njub nekkut feneen Umar Sall bu ngeen ibbi woon xolom ba xam lu leen yéene noo doo leen ko porter plainte Umar Sall dafa ñëw fekk leen ngeen di def lu wuuteeg lu yonent bi daan def mm-hmm. mu ne leen lii kat bi musu ko def yonent bi daaw ko def parce que da leen yéene njub moom Umar Sall moo tax mu wax loolu parce que doomu jullit bi yow doomu aadama bi doo wuteeg yonent bi mukk ba pare di ci am récompense yàlla jamais de la vie yàlla yonent bi la yónni kon yow façon bi ngay jaamoo yàlla yonent bi nga ko war a royee beneen jaamu yàlla boo jël di ko jaamoo yàlla te royee woo ko yonent bi zéro la perte temps la Omar Sall xam ngeen lan la leen di bañal ngeen egsi ba yawmal qiyaam gis ne ndekete Cheikh Tidiane lu mu leen gëmloo woon yépp ay illusion la woon ay fiction la woon dara du woon ci dëgg ngeen commencé nag di rëccu ngeen commencé nag di rëccu di yuuxu Omar Sall lii leen di bañal moo tax mu ne leen kat ah yéen ngi jaamoo yàlla façon boo xamante ni nii dafa wuuteeg ni ko yonent bi daan defee. bu la Omar Sall waxee loolu yow jullit lan moo la war bu dee bëgg nga dëgg bu dee bëgg nga njub demal nga vérifier lu Omar Sall wax nga weddi ko ci xam-xam nga dajji ko ci xam-xam mais bul dem di ko porter plainte loolu amul sens parce que ay julit bu ñu réeroowee alxuraan moo leen war a àtte ay jullit bu ñu réeroowee sunna yonent bi moo leen war a àtte ay jullit waruñu réeroo ba pare di dem ci ay loi laïque mu leen di àtte loolu Sénégal kese la am ay jullit yoo xam ne nee ay jullit la ñu am wuute ci diine ba pare dem ci ay luwaa yu yéeféer ay luwaa yu satanique pour luwaa yooyu noonu àtte leen kon loolu dafay firndee li ma leen yàgg wax ni Sénégal diine amu fa tarixa moo fa am ay tarixa yu fa maam yu sos bàyyi ko fa tey jii mu féewale ñu ñun jullit ñu mu diviser ñu booloo bu ñu waroon booloo tey ji nekk benn tarixa yi yàq na ko mais incha allah Oumar Sall li ngeen def nii da ngeen ko gën a dooleel sunna mi ngi gën leer Sénégal nit ñi dinañ gën a yeewu dinañ gën a topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tarixa yi dafay jeex bi iznillah parce que ay caaxaan la te ñëpp ñi nga xam ne tarixa yi ay caaxaan la dafa yomb torop yàlla sàkk la nga nekk ci àdduna di def lo neex dem topp keneen ku wute ki yàlla yónni ba nopp di ci yaakaar fayug yàlla yowmal qiyaam non loolu ay naxaate la yeewu leen ngeen topp alxuraan ak sunna te xam n loolu mooy dëgg Omar Sall incha allah dina génn daawo bi dina continuer dëggu yàlla ji dina gën a leer seen caaxaan yi dina nax saay muy tey di ëllëg bi iznillah kon yaakaar naa ne ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni soxna si indi na ko ci xalaatam ginnaaw bi nga xamante ni kii di oustaz Omar Sall yëkkati na ko teg ko ci li nga xamante ni mooy Wazifa ak li nga xamante ni mooy xadaratul juma tijaan yi gis si seen bopp dem porté ko plainte tey ba mu jural ko tey fa mu toog lëm ko njëkk sàkkul mooy fa mu nekk yal na ko fa yàlla defal jàmm ñi nit ñu koy ñaanal ndaxte sa moromu jullit de ko ñaanal jàmm ndaxte nit képp koo xamante ni yéene woo ko jàmm yow jàmmal ko yow jàmm du la ak nu mu mënte demee comme ni mu koy waxee sama noon bi gën a pire jàmm laa kon mi ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm ba mu génn fa ci jàmm ak salaam waaye nag dafa am ay kàddu yu mu ci teg teg ci ay comparaison donte loolu la wax ñi gis ñoo xamante ne dañoo bokk ci tarixa di saaga yàlla di saaga yonent kenn du leen porter plainte ñi gis bërki démb kii nga xamante ni mooy benn yoon boo xamante ni amaana ci ñoom la bokk nekk champ de course def gàmm mu saaga kii nga xamante ni mooy yonent yàlla Moussa سليمان xaw موسى Moussa واخو تي دارا كون تاي بان دك لو نك ان توكا مان اوما man aw تي ديف يين ني دي سيتان يين اي di خول فو ay فايتي ولا بان ايتا لا ني ban ولا دانيو راغال ني wala dañu ولا ñii ñeme ني wala ñemewuñu ñi ragal ñale en tout cas aman aw luma ci ma ciy commenté ndaxte ay mbir la yo xamanteni dafa soxal li nga xamanteni moy ay tarixa te nenañ ma tarixa dafa sensible te man dama wex dunku kon buma ci sore motax soré wu ma ci yoon di nga jël di fii waay mën ci ñaar